bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm karwaasu CNRA ba dala dina ci kaw Sen TV dalee ko ci tey film bii di série infidèle moom la ñuy tere képp koo xamante ne nii lu tolloo fukki at juróom benn benn ci matuwaay yi nga xamante ni moom la conseil national de régulation de l'audiovisuel di CNRA jël mooy ndogalub tere xale yi di seetaan série bile di infidèle bis ni ki tey su fekkee ne Sen TV dafa bëgg di wëyal di teg bile film faw mu fës leer ne dañu koy tere bépp ndaw boo xamante ne ni say at eggul ci fukk ak juróom benn ca tàmbali ga ba ca mujj waxtu gi nga xamante ni nii ca la ñuy amal googule série ca télé ba ànd ak loolu tere nañu waa seen TV ñuy teg boobule film laata 22h30 maanaam fukki waxtu ci guddi gu toftal la fanweeri simili waxtu gu ñu yaakaar xëy na ni xale yépp daañu tëdd nelaw bi leen ndogal nag ndogal bu bees la ci réew mi ndax ba tey ji ndogal yu ñu mel daawuñu ko gisu lu dul ci chaîne nasaraan si rawatina ci lépp loo xamante ne ña ngi koy teg ca te jàpp ni am na ca loo xamante ne nii xale waru ko seetaan laaj bi samp ci mbir mi kay mooy ndax yi leen dogal dina doy bu fekkee ne série yu nu mel mën nga ko seetaan ci l'internet bi ci waxtu wu la neex te xale yi daanaka ñoom ñëpp yor nañu ay téléphone yu leen mën a may ñu di ko seetaan ci fàttali ndogal bi waa CNRA jël mu ngi tukkee ko ci ab plainte boo xamante ma nga bàyyeekoo woon ci waa Jamra jëm ci série bii di infidèle ginnaaw bi ñu dégloo gi nga xamante ne nii ñoom ñoo yore wàllum production bi les films ca la firnde ci ne bile série di infidèle am na ci ay kàddu jëf ak i nataal yoo xamante ne nii mën na yàq jikko mbaamu jaxase xelu ku matul ñoom jàpp nañu ne yooyu la jëf ak i kàddu ñàkk teggin la te méngoowul benn yoon ak li nga xamante ne nii moom mooy yi ñu naw te ràññee ci réew mi na am sax yu ni mel dafa yàq deru doomu aadama ak di xotti orma ak daraja jigéen ay pàcc ci film bi jàpp nañu ne méngoowul benn yoon ak li nga xamante ne nii moom mooy ngor ak jom aada cosaan ak jikko yu rafet yi nga xamante ne nii moom la ñu ràññee ci biir réew mi rawatina doxalin doxalin bu dëppoog diine lii la waa CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel daal di joxe comme lay laata muy jël bi la ndogal ci kaw waa Sen TV bi nga xamante ni ñoom ñooy tekk bi le film ci télé bi Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal